asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel ci bés bu tedd bii nu ko di ñaan sunu borom subhaanahu wa mu yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo jiite moo toogee jotaayu xaadimu rasul yàlla na fi yàgg lool te wér. te yàlla kàttanal ko jataay bii jataay bu ñu meen la ci waxtu wi nu toll nu teew ci kanam sëriñ Cheikh Mbacke mu fi Abdou Latif mi nga xam ne jot na ndigal ci ay kilifaam ni nu ko baaxoo defee saa yu ñuy waajal màggal gi seetal dëkkub Serigne Touba yi balaa gane sëriñ Touba yee ñëw bu màggal gi jàllee ba ñu gàmm ba noppi itam nu wëlbatikuwaat defaat noonu setalaat dëkk bi gunge ko gani sëriñ Touba yi loolu nag moom la waajal nii ci teewaay bi ni ma ko waxee Serigne Cheikh Mbacke Feb Latif mi ngi nii toog ak soxna Astu Mbacke bintu Serigne Abdoulahi mi nga xam ne moo jiite daayira kantul muhtadin bi lëkkale sëriñ Serigne Touba yëpp ñu fas yéene waajal bés bu mag boobu nga xam ne moo ne ci sunu kanam ñu di ko def bés bi ñu gàmmoo bu dellusee ba ca suba ga incha allahu taala mu war a doon ajjuma ji nga xam ne mooy doon juróom fukki fan ak juróom-ñeent ci gàmmo wi war a tombeek le 6 novembre incha allahu taala moo tax nag nu teew nii war a yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Mourtala Sy mi nga xam ne naka jekk jataay yi moo koy ubbi bu noppee ci woote boobu nag mu jox kàddu gi Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Abdou Latif Cheikh Mourtala bismillah bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jur yi mbokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou Latif ci la ñuy jottalee kàddu yoo xam ne dafa jëm ci liggéey bi nga xam ne miin nañ ko ñun ñëpp te muy ginnaaw màggal di ginnaaw gàmmu gi sëñ bi da wax ne dafa fa mu ngi woot ñépp ñoo xam ne ñoo moom ñoo àndoon liggéey bi ñuy jub màggal gi kon mi ngi soññewaat ci mbale mi nga xam ne ginnaaw gàmmu lay doon ni ko sëñ Omar waxee di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmm waaye taseeg juróom-benn fan ci weeru novembre bis ba nag taseeg muy ajjuma kon sëñ bi nee na mi ngi soññi daayira yëpp waaye di jiital ci njiiti daayira yi nga xam ne ak seen kilifa muy soxna assum yi nga xam ne ni ma koy waxee rek fu sëñ Cheikh taxaw rek mu taxaw ci toom loolu dalal na xel lool ci liggéey bu mel nii sëñ bi di ko di wax ne mi ngi jaarale kàddu moom it di soññi mbooloo moom nga xam ne ñoom la àndal ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa waaye nag di soññ daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi te baaxoo saa bu liggéey bi jubee sëriñ bi jaar ci seen tur muy boole ñëpp fu fi ab daayira nekk ci biir dëkk bi wala ci biti dëkk bi sëñ baa ngi leen di soññ ci biis bii nga xam ne ci lañ bëgg a setalewaat dëkk bi ba mu set wécc ñu taataanaat nañ ko daan defee ba li nga xam ne moom lañ yéene te sëñ bi bëgg ko yàlla defal nu ko ci kon sëñ bi ne mi ngi soññi waa marché bi jaarale ko seen siini jang mi nga xam ne mooy seen jawrin sëñ bi ne mi ngi soññi waa marché bépp bàyyiwut benn marché nag ci dëkk bi ci biir Touba bu mu ci mën a doon rek waaye di soññ itam njiiti garage yi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi fu fi garage mën a nekk garage su Dakar baag garage su benn yaag garage su taxi yaag interurbaine yeeg urbaine yeeg ñëpp sëñ baa ngi jaare kàddoom ci seen seen kilifa yi nga xam ne ñoo nekk seen kanam di leen soññ ci liggéey bii nga xam ne moom ñoo ma ko bokk boolewaat ci borom sareet yi ñu leen daan soññee rek ndax sareet yi day waxtu nañu leen koy fàttali liggéey bu toll nii ñoom ñu ne ci biir dëkk bi nit ñu di ko liggéey ñu takk seen sareet di romb nit ñi mel ne ñu soxla de moo ne ñoom de kenn dàqu leen a taxal kon ñooñu itam sëñ baa leen di soññ ngir ñu ànd ak mbooloo mi fu fi oto bu mag mënta dugg ñoom borom sareet yi génne loola ñëw indi ko ci pénc yi yaatu yi ñu fekk ko fa tonni ko kon sëñ bi nee na ngi soññ borom sareet yi mboolem nag garage yi nga xam ne ñoo yor garage rek yi fu mu maane ci biir dëkk bi fu garage nekk rek sëñ baa ngi soññ ñooña di soññiwaat commerçant yi nga xam ne ñoo bokk na ci dëkk bi te liggéey bii nuy liggéey nu war caa bokk ndax ñi ëpp ci ñi taxal ci lañ bokk kon sëñ bi na mi ngi soññi commerçant yooyu ñu ñu def seen loxo ci liggéey bi te ni ma koy waxee rek liggéey bi kenn du ne mënuma cee dugal sama loxo ndax nu ne rek mees na ko cee defee boo indee sa jëmm bokk nga ci boo ci defee sa alal bokk nga ci kon kenn mënu cee mucc kon sëñ bi nee na mi ngi soññ commerçant yooyu nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi waaye nag di soññ ki nga xam ne moom liggéey bi moo ko waroon di soññe mooy Abdou Lahad Ka mi nga xam ne mooy maire Touba bi te liggéey bii mu di ko ànd ak ñun waxtu ne sëñ bi nee na mi ngi koy soññ ca lam daan def na ko yokk bu baax a baax ndax jamono ji dëkk bi ka taq na ndax taataa yi fi nekkoon am na mbalit yu fi nekkoon yoo xam ne bi taataa bi ngiisee dafaa bàyyi mbalit ma kon sëñ bi nee na mi ngi soññ Cheikh Abdoulaye Ka moom itam ci liggéey bii nga xam ne noo ko bokk ak moom tem ci tem ànd ak ñun ci liggéey bi sëñ bi mi ngi koy soññ waaye di soññaat ñen mécaniciens yi menuisiers yi menuisier métallique yi bàyyiwu ci kenn koo xam ne yaa ngi liggéey ci biir dëkk bi te di ci jariñu te li may wax ne kenn ku ne bi ngay ñëw yaakaar la fi indi te sa yaakaar tasut ndax am na si ñoo xam ne ab saak dong la ñu indi woon tey mën a ñoom étage am na koo xam ne bi mu ñëw saret la am tey ma nga am kër goo xam ne wóor na ko ne du du njàmbaram sëñ Tuubaa rek la sëñ Tuubaa nag yomb naa liggéeyal lool koo xam ne li ma koy waxee atum lëm ñu woo la ci ñaari fan ne dañoo bëgg buñ buñ buñ jubee magal gi ñëwal ñu teeru gan ñi su magal gi jeexee ñëwal ñu gunge gan ñi lépp nga ne ko sa bopp waaye waaye loolu yomb na ku mu nekk ci dëkk bi ku mu mën a doon ñu ngi lay soññ bu baax a baax a baax ci liggéey bii nga xam ne dëgg mën nañ ko te fas yéene nañ ko daan defee mu gaayoo noonu sëñ bi dem di ci yokk ne bëgg na bépp daayira foo mën a nekk ci biir dëkk bi ñu ngi ñaan bi bisub liggéey ba nu bokk tàmbalee ci jumaa ji ba jeexal corniche bi su fekkee nag liggéey bi mën nañoo jàll su boobaa ñu jàll waaye ñu jox la oto nga dem ci ab quartier gaare fa oto ba liggéeyoo ca te liggéey bi ne ci biir dëkk doom sëñ bi nee na mi ngi ñaan ñooñu ñu bàyyi ko ku ko ci doon def itam nga bàyyi ko ku fi dew doon bu sa xel nekk waaye nag di soññi ñoo xam ne ñoom ñooy tax mbalit mi mën a génn dëkk bi ba sori mooy benn yi benn tubaay yi tàmbalee ña ko moom muy transporteur yi waaye ñëw ci chauffeur si nga xam ne ñoo koy dawal kon ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo seq liggéey boobu ak borom peel yi sëñ bi nee ne mu ngi leen di soññ bu baax ci liggéey bi ñu am ci pas-pas am ci yitte ba nga xam ne bu ñu ko songee ajjuma jooju rek duñ fi taxaw daanañ ko def ci ñaari fan wala ñetti fan waaye bii si mi daa bëgg bis bu njëkk bi muy ajjuma daanaka daanaka rek bu ñu ci jógee gaaw bi dañuy àggal rek mën a yeewu nit ñi kon sëñ baa ngi soñ ñëpp di ñaanal sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Muntaxa Mbàkke mii nga xam ne moom liggéey bii nuy liggéey yàlla yàggal ko fi te wéral ko ndam lii mu am ci liggéey sëñ Tuubaa bi yàlla na jëm kanam yàlla na ko defa defa defa def ba nu mu ko bëggee rek te yéenee ko ni yàlla na ko suñu borom may kattan ba mu àggale ko noonu murit yëpp a ko amel njukkal comme maa doon rek amal nga njukkal sëñ Muntaxa murit yëpp a ko war ñaanal ñëpp ko war ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko ci barke sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu wa rahmatulahi taala wa barakatu ngi nuyoo jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi sunu kilifa di borom jëwriñu liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi noonu murit yëpp nu ànd di ko nuyu di ko siyaare di ko ñaanal sunu borom gën ko fee yàggal lool ba liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ak yéene jëm ci am màggale yéene jooja nuyoo boobu dañ ko jàllale ci njabootu Serigne Touba gépp jàll jaarale ko ci Serigne Bassirou ba nga xam ne mooy sunu jëwriñ ci liggéeyu sëriñ bi rawaate na mbooloo mi taxawu magalu Touba te sunu mbooloo mi bokk ci ñu comité d'organisation magal Touba commission assainissement bii nu jiite bokk ci ñu nuyu Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall ku xam taxawaayu Cheikh ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa waaye ñu xam taxawaayu Baye Fall ci mbale mi may nuyu nag soxna Astu mii nga xam ne mooy sunu ndey daara di sunu jëwriñ ci liggéey bi bu ngeen gisee ma soppi waxin wi nuyu kilifa yooyu laa daan yëkkati di ko jëme ci ñun àndal liggéey bi tey ma wax sunu nuyoo nun waa liggéey bi mu jëm ci kilifa yooyu du dara lu dul day lu xam yàgg koo waxtaane yàgg ànd ak di ko jëf ndigal li leen ndigal la ba nu ko jotee ba nuy bëgg a màggal mu jógee ci sëriñ sëriñ Muntaxa ñëw ci sëriñ Basiru mu yónni nu ko dem ci sëriñ Saa Jàmb woowaat bokki taalibe bi yëpp nu di ko nas di ko ànd di ko taxawu ba liggéey liggéey ba ca mbale bu njëkk ma gën gaa rafeti anam kon buñ dellusiwaatee ci mbaleem ñaareel bi dañuy yëg ne ndigal li jotoon nañ ko bu yàgg te mbale bu njëkk ma ba doxoon jéegu ye wacc ca war ci mbale bu njëkk ma dafe ko nañ ko waroon defe kon mbaleem ñaareel bi bu ñëwaatee ñun nooy yëkkati sunu nuyoo ba ànd ak sunu cant jëmee ko ci kilifa ndax bañ ñu joxee ndigal li dañ ko ànd ak nun taxawunu ca dinu ñaanal dinu jàppale ba nu amoon ndam li kon moo tax kàddu yi nu njëkke ci nuyu leen te nuyu ba daa ànd cant ak rafet njort ak feddali laxasaay ak jaayante ci fas yéene defaat liggéey bi rek nañ ko daan defe muy siyaare soxna su bu baax di fàttali kóllëre gën seq ak moom nga def ko sunu waajur ci liggéey bi def ko sunu jëwriñ loolu laay wooyee soxna yi yëpp nag ci turu soxna su nu waajaat takkuwaat taxawaat àndal liggéey bi ndax soxna yi ñi ñooy waa daayiraam bi nga xam ne ñooy ànd ak moom ñuy taxawu liggéey bi waaye soxna yi na ca biir dëkk bu yor seeni bale di bale tam ci gannaaw soxna si lañ tënku soxna si seen jawriñ kon ñoom it seenum nuyoo ci soxna su laa koy jaarale mu àgg ci ñoom kon dafa mel ne soññee rek lañ doon def ndax fàtte wun fàtte xaju fi te baaxoo nañ koo def kon ne xam na ko at muñ mas a balee bale mu njëkk bale lañ baleem ñaareel benn bis bii lañ ko mas a def benn képp lañ ko mas a def màggal gàmm bu bis bu del si ñu màggal bi màggalu Seex bi ci suba sa ñu xëy bale ji te booba ñu gisoon tànk-tànk yém ci juróon ndax bàyyi faali seen bagage yi ñoo doon delloo ak coono ba ñàkke woon moo tax di ko jàllale ci gannaaw suba sa loolu moo waral màggalu Seex bu dee àllarba alxamis bi su gàmm bi delsi ñu xëy ak juma war a bale ji soññe bi ak bi nag ni ko sëriñ Mortalla si waxee rek la demee ñëpp xam nañ niñ ko daan ànd kenn ku ne fa nga xam nga ko muy jëwri yi jëwriñ ci biir dëkk bi ñu jiite daayira yi ñu jiite zone yi waaye ñu jiite mbooloo yi mbooloo yi sëñ Mourtala si lim leen mën naa cee bañ a dellu di juum wala mi batte waaye xanaa ñu tudd ci ñaanal rek mel ni Abdoulaat Ka mi nga xam ne dëkk boo dem ci dëkk yu mag yi lay seetal dëkk ba maire bi moo ko yor waaye kon setal gi nu def setal dafa bokk ci liggéeyu maire bi kon Abdoulaye Ka noo ngi koy soññi fàttewut diibut waaye baatu soññe daa mënta ñàkk noonu itam lañ koy berelewaat ay soññee rek ñi nga xam ne muy waa mbeen yi suñ motulaa si wax na ko léegi ndax lañ ko daan wax bale ñett ko seq ki yoru baleem di bale ki koy ton ni ak liñ koy teg ba mu génn mooy kii bale mbooloo mi bu ñu balee tonni ko tëj ko oto yi oto yi kon oto yooyu képp ko xam ne daa nga ñu ci jàppale ñoo ngi ci tàllal loxo tàmbalee ko ci regroupement bi ba ci UGC ba ci ECOTRA ba ci ñi nga xam ne dañoo équilibre yu am seen benn oto seen ñaari oto ci dëkk bi te bokkuñ ci biir regroupement ba noo ngi leen tàllal loxo loxo mën a nu mën a gën a gaawee ñi ci daan jàpp ci li nga xam ne mooy doxal liggéey bi ñu ngi fàttali ne liggéey bi moom waxtu wu mu ànd ak ay fere ndax mbooloo bu ñu leen di liggéeyloo faaw nga dimbal leen di lay tax ñu mën a liggéey lay tax ñu mën a liggéey rek mooy am jumtuwaay xéewlu it ba mën a liggéey loolu itam ñu ngi fàttali ñu ci daan jàpp nu ci waaye daan jàppe noo ko mënee rek nga defe ko nag te xam ne ñu ngi koy yitte boo di ci képp koo xam ne foo ma mën a nekk bu liggéey bi ma jot xam nga ne sab liggéeyee nga seeral sa pasé ak Sëriñ Tuubaa jàpp ji ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa noo ngi lay fàttali ne fàtt jàll jàpp googee day lu mënta ñàkk ndax dëkk bi bu ñu amee fukki weer ak ñaar donte ñi fi nekk ñi ngi góorgóorlu ICC ñu ñu ngi bale ci quartier yi waaye dëkk bi rëy na rëy goo xam ne faw si Sëriñ Tuubaa mi génn ci biir diirum ñaari fan ñetti fan setal ko tonni ko dëkk bi dara set ku ne xam ne it buñ balee mbalee mu njëkk mu noppi kenn ku ne da nga sa bopp ne dëkk bi leer na woyof na woyof na ci sa bopp waaye nag ni koy waxee rek ndab boo ko raxasee def ci sa mbir moo xam saw ñam la wala nga denc da nga ci bëgg denc boo ci noppee da nga koy raxasaat denc ko kon bu ñu seetalee dëkk balaa gën ni ñëw bu gan ñëwee ko danañ seetalaat dëkk bi kon na ñëpp xam ne seetalaat dëkk bi jot na képp ku ci daan jàpp ñu ngi lay woo donte tey ab daje woon boo xam ne daje yëg la rek ne waxtu wa jotati na nan ko waajal te defe ko nan ko daan defee loolu moo waraloon woote bi jot liggéey loolu rek la laaj kenn ku ne xam ne waxtu bi jotati na bun masaan màggal ba noppi daal ba gàmmu jub dana ndaje benn ndaje waxtaan xam ne ay ci bisam laay nan ko waajal bon gaañu moom ba noppi gàmm ba noppi dana ndajewaat waxtaan ca xam na nuy waaje ba bu àgg ca bis ba waaj daanay wax ne mbali mi moom at mu ne man nañ ko gën a jekku ba mu gën a yomb mbale mu njëkk mi danaan wax ne mën nañ koo bale ci benn bis waaye ab tonneem daana gën a yaatu ndax yu bari day fekk ñu gëj a dëkk bi nawet bi taq-taq yi garab yi gor yëpp la ci daan daje ba tax na tonne bi daana mat ñeenti fan jëm juróom baleem ñaareel mii nag waxtu bu nekk li ñuy sàkku di ko ñaan nu yem ci biir corniche bi ndax li tax mooy li ci ginnaaw corniche bi moom fu fi ay mbooloo nekk quartier yëpp yëpp ay jawriñ demoon nañ fa ak ay mbooloo mbooloo mu ne fañ dëkk dañ leen jox seen i oto ak seen i bagage ñuy bale ji foofa ba dëkk bépp set te gis na ne jëmi màggal gi nag biir corniche bi rek lay taxalaat kon fa nga xam ne toqul nag demaat fa dafa seetli ci loo xam ne daanaka lii ay pàkk yu dara nekkul la lii am ñax la te biir dëkk bi nga xam ne moom la màggal gi taxal nekk bi boo ko dee xool itam xel nangu lool xel lim nangu mooy nu daje ci biir dëkk bi sëñ Mourtala wax na ko léegi bu ñu xëyee daje ci jumaa ji gox bu nekk zone bu nekk ak daayira yi fa nekk ñu orienté leen jox leen seen oto seeni jumtukaay ñu tàmbalee ci jumaa ja bala jëm soow mel ne daaru bi nam bu ñëwee ba ci koñu gët ni ab laat wala jublu soow nag daayira ya fa nekk ak sëriñ jang may yore zone baag xam nañ fa mu yem ca tëli njóge tëli mbàkke so jëm soowu jëm corniche noonu yi la ko sëriñ Mourtala si defe ca soonu mboobee moo ko àll ñang ca daaru xulóos tam tëli njóge ba tëli daaru mus noonu la ko jëwriñ yi defee itam ca gede sëriñ Birane na ngi nii toog nekkal fii jëwriñ yëpp sëriñ Thiaw ñoom ak Mamour Bousso ñoom ak ñëpp ñu defe ko noonee son boobee itam muy ña nga xam ne ñoo nekk ci suurub tubaab Mosquée bi di wàgg suñ maam morom suñ Fallu ak jëwriñ ja muy àndal te foofu it bàyyi faa di gën koo def seen sonn waa marché bi ne fa ñëpp kenn ku ne xam nga fa sa barab xam nga fa nga daan jëm xam nga na ko daan waajale ñi nga xam ne dañoo nekkul ci biir dëkk bi tam képp koo xam ne mën ngaa ñëw jàpp ci noo ngi ñëw sàkk ñu jàpp ci ko mën a gën a gaawee dina wax dëkk yi dëkk bi yëpp dëkk Sëriñ Tuubaa lañ lu tàmbale si Mbàkke Bawol wër ba ba ngay def Daaru Muxti waraat ba Madina Touré waraat ba ba ngay def si waat Mbàkke dëkk yépp dëkk sëriñ bi lañ barab yëpp barab bi sëriñ bi lañ foofu waaye nekk na am yëg-yëgu sëriñ Tuubaa woote na nan wuy si sëriñ bi def li ko sëriñ bi defloo ba nu fi jógee suñu aajo faju loolu rek mooy woote bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee xalaat naa itam nu war fee dajewaat dajewaat boobu yi maa ngi xalaat ne mën nañ koo jàpp alterné tey ji dellu si rek dana fekk ñu gàmmoo alxames ajjuma gaaw dibéer alterné ñu dajewaat fii buñ fi dajee waxtaan tem jar beneen dajewaat balaa mbale baax na bu ko jarul moo xam alterné yëpp mën nañ cee waxtaan wala talaata je buñ ci waxtaan ak jëwriñ ñi duñ ñaari wat du mu jàll jàpp jàll ko ba ci talaata je wala ba ci àllarba ci ah, talaata je sax ndax àllarba ji day doon màggalu Baay Faal kon nañ ko jàpp talaata nga xam ne jaru woote waat nan ko nan ko jàpp talaata defe naa ne dana baax defe naa ne dana jub jëwriñ yaa ngi nii ak xalaat bi ñu ci amee tamit ñu génne ko waaye defe naa mën nañoo bàyyi ci talaata bu ko defee day tax suba sa màggalu Baay Faal yi àllarba alxames jaar fi ajjuma yu bare ji te jamono xat na ba woote yu bare yi xajatu ñi ñu doon woo nag nga xam ne mëneesu leen a ñàkk a beral ab woote naa ci Abdou Lahad Ka dugaloon ci regroupement bi ak ñeneen yi ñi nga xam ne nag dañuy ñoom ñuy noon muy waa Touba ci kanam a jekk mbale mi noo koy bokk naka jekk lu ñuy def it noo koy ànd ndax loolu ba bam damay wax ne liggéey ba sëñ Abibu liggéey am na ci xalaat yoo xam ne ci mbale mii la jóge woon ndax yéene ju mu yéene woon dëkkub Sëriñ Tuubaa bi nu ko seet ne na nañ ko war a saytoo la ma njëkk wax ne xalaat naa ñu tëral aw doxin woo xam ne bu ñu ko tëralee danañ dem ba dëkk bi liggéey bi dana yomb ci noonu ndax mën nañoo defar yoon yi dem bay xalaat ne mën nañoo paawaas dëkk bi yëpp nañ ko defee ci Paris defee ko ne ci Rome defee ko ne ca New York loolu xalaat bu rëy bu passé boobu bu yaatu la loolu itam ci la dem ba mu ànd ak waa Touba kanam ñoom it donte mbooloo mu taxawoon la jël sëñ Abibu di seen jëwriñ di seen kilifa ñu ànd ak moom ci liggéey boobu ba ci defar dëkk boobu ñu nekk ci loolu mooy ànd ak mbale bi rek noo bokk benn liggéey dañuy jàpp fenn jàpp fee kon ñoom du ma leen woo duma ma leen soññi dama leen naan ay ci rek suñu liggéey baa ngi noonu nan ko ànd nan daan ànd lépp liggéey baa ngi noonu waaye maa ngi seer Sëriñ Abibu di ko waxal liggéey bi yéeneem ak pasteefam yàgg na koo defe ci liggéey bi ba ci mbale mu njëkk mi képp lam doon nekk nekk ci liggéey bi Touba ci kanam ba la muy diis diis da doon ñëw ci lim nu daan jàppale waxuma sax lanu Touba ci kanam jàppalee ci ay nag ci ay xéewal yu bari waaye sëriñ bi dafa am liggéey boo xam ne da da koy taxawoo soxna su mag su baax te sëriñ bi ren jii bi ma soxna si toggalee xéewal yi moo ko teg ci otoom wër ma ba fekk ma ci biir bi andi fa xéewal yoo xam ne daayira yi féete ci wet googu gépp ca lañ xew loolu muy taxawaay bu rafet bu rëy boo xam ne te mësuñu koo tàggoo loolee rek kon la ñuy den ci gën a sant di ci gën a rafetlu di ko gën a tegaat suñu kanam ba ni ñu soxna astu doone suñu kilifa doon na suñu jëwriñ sëñ abi boobu noonu la ko def suñu kilifa defe ko ne suñu jëwriñ ne ko bisam laay liggéey baa ngi noonu moo ñoom ànd la ci Tuubaa ci kanam ñëpp jërë ngeen jëf maa ngi sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon mbokk yi da ngeen woote baa ngoog soññe baa ngoog li ci des rek mooy yitte ak Pastef dëkk bi moom ñi ko seq mooy ñi fi dëkk ak ñi fiy dikk bu kenn ku nekk boole lam man sëriñ bi am li mu bëgg yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ni ko sëriñ bi waxee ba àjjuma ja na ñëpp daje ci jumaa ji ñu tàmbalee ci jumaa ji liggéey wuti corniche ba loolu mooy ndigal li soxna Astu itam wax na ne nii ko sëñ Cheikh wooteele mu ngi soññi aboo mi ngi soññ mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoom ne ci ginnaawam ñoom ñëpp ñu ànd ak Pastef bu bés baa ñu xëy rek nañu ko daan defee ànd ko ak moom noo ngi séentu ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla yóbbu nu ci te àggaleel na sunu yéene ci sëriñ bi